alaikum les amis j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille, santé yalla, alhamdulillah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr avec votre grande chroniqueuse Kenza 221, borom matricule 221, kharitou Guy. comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois, néna toutes les informations et les actualités du rap galsien se passe ici sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Donc, vous savez jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. yéen ñi nga xamné nak am ngeen application 1xBet ci seeni téléphone portable bolé leen di jouer mën ngeen utiliser samay code promo Kenza 221 wala Kenza dina leen permettre ngeen gagner bonus ba 150 000 francs CFA.

mais récemment dafa ñëw génnee benn freestyle intitulé Zeniga ci la ñuy wax tey ba joxe ci sama point de vue sama gis-gis ak sama xam-xam bu gàtt à la fin de la vidéo yéen tamit ngeen joxe seen xalaat ci commentaire yi donc let's go ñu àndandoo xooli un peu sur la vidéo de Big Zo Panda ñëwaat léegi léegi ay ca benn gel lañu akaat ñi dañu wéra di te rama dal jàmm ndaxay ba su fan mën na ma gën a si xamal ni nga ma si kaw everything cash ma ne day mat ma da di ay dëmu naa fekk ñëpp a martaat bullshit ma look at you see. Alors, on a vu ensemble la vidéo et c'est au nom de The Nigga. Qui nag mooy Big Zo Panda rappeur sénégalais et Espagne Mais la peux mais ci biir vidéo bi gis naa ni mu biir Sénégal bon freestyle bi euh, duré na minute 46 secondes et ci biir freestyle bi je vous jure que dama cee seetlu lu bari sax muy de un ba ngeen xoolee Big Zo Panda bi ak bu njëkk ba di ngeen xam y a une très très grande différence on dirait qu'il a grandi et c'est le cas parce que dafa ñëw ak benn maturité ce qui montre son évolution auparavant et maintenant. de deux boo leen dégloo sound bi bu baax déglu les précédents sound de Big Panda di ngeen xam ne évolution am na bu baax sax ci côté lyrics et la maîtrise du beat. parce que ci freestyle bi Big Zo Panda daa maîtriser beat bi tegu ci naay sax sans complexe et là, c'est très important parce que la maîtrise du beat c'est la base et mon maîtrise le beat c'est la RAS. on continue gars de 3 la qualité de la vidéo vidéo bi une qualité trop ça par rapport à ses vidéos précédentes et clip du Sénégal le tourné en plus le fait que vous tourne le clip bi trop puisqu'il était en Espagne euh, donc tourner le clip su que je clip c'est quelque chose à apprécier. donc il veut juste nous faire savoir que jusqu'à présent fàttewul dëkkam mais en même temps fàttewul ay origine am à loolu nag gars yi dañu ñëw dugg ci biir sound bi ci noonu boo ko dégloo mu ngi naan yéen ñëpp cere ku dugg ci man ma bâche sa dëj ci at bi donc foofu am nañ punchline ci la moo cere parce que daf ñuy jox un double entendement cere comme cere bu ñuy lekk mais cere comme lu faux loo xamante ne ni du original au fait dëj moo koy accompagner pour ngeen mën a comprendre bi et li mu bëgg a wax mooy gaa yëpp dañoo faux et ku jum ba dugg ci moom dina bâche sa dëj parce que doo ci génnee noonu on continue mu newaat rab bu wala fa raw wadi si kay fëg faal rigueur fii faal rigueur la clash faal rigueur ñu ko xam ci pàcc rab wala euh, moo raw lañ ko xamee wala jëfan si dib dund gis parewul on continue gars bu ngeen dégluwaatee Big Zo Panda mu ngi naan benn gel la ñuy àkkaat fii dañu wéradi àkkaat saaga la bien sûr mais da koo codé boo ko dégluwul bu baax doo ci mën a bàyyi xel alors gars yi kii nag muy Big Zo Panda on a essayé d'expliquer ak sama xam-xam bu gàtt sama gis-gis aussi sama point de vue mais de toute façon gis naa ni euh, évoluer na bu baax a baax a baax gis naa ci moom évolution bu mag sax muy ci côté lyrics côté qualité vidéo mais aussi je suis la maîtrise du beat lépp évoluer et je vois qu'il est très très talentueux talent day yokk daa ko fait s'il vous plaît wax leen seen xalaat ci commentaire yi noo leen gisee le sound la vidéo noo leen ko gisee moom l'artiste en personne ak tamit lan ngeen koy jox comme conseil à vos claviers bàyyi naa mu tëmb donc lii laa leen indiloon tey n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker mën ngeen vous abonné ci sama page Instagram Kenza l'officiel ngeen abonné aussi ma page Facebook Kenza 221 ngeen ajouté ma sur Snap Kenza Dialogue, sur TikTok Kenza National love you all la mi mm, gros bisous à vous au revoir et à la prochaine